Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Charoui ITV, la chaîne d'information, 44 Event Pro, la chaîne événementielle, www.charouiinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous. Je suis ambecté ngeen ñëw gisal ko seen bopp sax parce que tey leneen moo leen fi indi woon mais tey yéen gisal ngeen seen bopp ni dugg ci infrastructure de base yi lu mel maison des femmes maison des jeunes ba ci terrain municipal lu jafe la te Abdoulaye Wade moo jëloon décret en 2002 gis ni banlieue bi soxla na ay de base soxna na hôpital soxna na lycée motax mu am lycée tiaroy soxna na ay sem motax fi amna ñett sem, amna ñaar école alimentaire mu jëlat lu toll 10 hectares daf ko ay marché donc lu nga xam tay nak jeunesse tiaroy mom lañ sox amone muy stade bi maison des jeunes en 2018 militaires yi ba ñuy sécuriser sen camp du camp Thiaroye kese camp yépp dañoo miré wat suñu ay infrastructure de base tëj suñu ay buntu ba nga xamni fi fii amatuñ fi base tay buntu bi à partir de 19 heures buñ ko tejé kenn dootu dugg parce que ci biir camp bi lañ nek donc nous lu nous ñaan domaine militaire Nous sommes nous jox mais domaine militaire parce que nous avons accès à leur maison des femmes auparavant da la maison des femmes 5 minutes ngay minutes pour jeunes yi nga ne centre polyvalent bi formation parce qu'il faut faire un grand détour terrain municipal bi stade accès militaire dañ ko clôturer dafa ko seen domaine militaire donc lool nak récemment le vendredi passé jeunes yi dugaloon nañ ben demande de marche le préfet rejeté ko ñom ñu accepté ko donc lu ñu ñaan état mooy infrastructure de base yi nga xamni dafa nekk ci biir camp bi ñu séparer ko avec le domaine militaire donc ñun nous ne sommes pas contre les militaires état mo joxé mo ñu mayoon infrastructure bañ tabax ko parce que fi bu doon domaine militaire kenn du fi tax maison des femmes kenn du fi tax centre polyvalent donc lool le jeunes yi di ñaan nañ leen gennal on est à quelques encablures des quartiers donc quartiers quartier ko de quartier donc fi tay am pour am accès donc jeunes yi c'est un combat vraiment bi nga combat bu noble combat bi nga xamni kuko nga ni le groupe G8 Media, Digiclick, agence de communication, Charoy ITV, e la chaîne d'information, 44 Event Pro, la chaîne événementielle, www.charoyinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous.